بسم الله يكفيني أقال يا الله صلي بقى أبي يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسوى ما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتديا فوزي بما ستوفي duniyaaka yàllaaw waajuram ba sëñ Xalil Mbàkke sa jëwriñ ja moo daan ànd ak ñoom ku fi nekkal sëñ ñi yindi sab liggéey waaye ren nag bu ñu bu ñu gisatu sëñ ñëw sëñ Fallu mii ne ko dañ ko daan àndee ak sa waajura noonu dañ ko fas yéene ànd ak yow moo tax mu ànd ak ñoom indi seen addiya Mbàkke jébbal na ko bëgg nga ñaanal leen ñoom ñu ngi nii jëwriñ jaa ngi nii kaamil la lii la fukki million ak juróom-benn sëñ Cheikh bisimilah teg sa loxo waaw. kon jëriñ ji ana jëriñ ji nu mu tudd Cheikh Ndiaye sëñ Cheikh sëñ Fallou Mbacke mii moom sëriñ Khalil. ba ngeen gëstatul waajuram ngeen jël lépp teg ko ci loxoom ku fi nekkal sëñ Tuubaa mu fas yéene ànd ak ñoom ci liggéey bi kon na ngeen xam ne jataay boobee jataay bii sedd na xolu sëriñ bi guy waaye dal na xelam ci jëf ji ngeen def. di ànd ak Serigne Fall mii moom Serigne Khalil mi ngi leen di ñaanal ngeen ngeen dee ngeen nuyul ko waa Touba Brésil yëpp mi ngi leen di sant ci seen taxawaay ak seen yitte ak seen pësteef di leen ñaanal suñu borom dimbali ba daje tawfeex sëñ Touba seen lépp gën di yomb seen lépp gën di yowéen seen lépp gën di kon mi ngi ak Serigne إن منك الله أنت سلام لاسي سلام تكون يا من ويا بنفسي بتاي إذ منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي الأمن في الدارين يا الله وبالمؤمن لست أبي استرايكا ما خبيت رم إلى الجماعه يا الله أنت العزيز الأسي أقيم بإيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم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 الكل يا الله يا غالي خلق لغما أساء يا الله السلام عليكم ورحمة الله mbokki talibé ngi leen di ziar bu baax di jital cant ci yalla sunu borom mi nga xam te may ñu tawféexu sëriñ bi ba ñu mën a daje jotaay bu mel nii di ziar sunu sang bi nga xam ne moo fi toog di sëñ falu Khalil wutu fi waajuram wu góor wi di sëriñ Ibrahima Khalilullahi ku xam turam ko ne xam ko xam na mu meloon ak ñun ñii mbokki taalibe yi nekk fii ak lam ñu defal teraanga yam ñu defal biir Brésil munuñu lu may bu fi jógee ñu ñaan yàlla yàlla nañu yàlla tas si barkeem te sunu sang bii nga xam ne moo fi toog di sëñ Fallou Khalil yàlla na yen wi oyof ci moom ndax wax dëgg yàlla moom sëriñ bi dañoo booleeg moom laataa sëriñ bi dem kon ñun waa Brésil nii ñu def nii nii dong la ñu mën a defar man nag sama wax du mën a bëri ndax mun maa wax ci mbooloo waaye kàddu cant gannaaw ba ñu yàlla boolee ñu tombe ci liggéey bi nii man maa yore Euh, trésorier bu confédération bu Brésil bi yëpp ànd kaak samay naataango bu ñu ànd fii yëpp kii mooy jëwriñu Baye Fall yi Ousmane Baye Fall jëwriñ sëñ Cheikh Ndiaye moom yaakaar naa duñ ko présenté kenn kële di sëñ Mamour Gueye yore social bi ñu si liggéey lu am solo loo xamante ne bépp mbokki taalibe boo xam ne wàcc nga biir Brésil si ñuy taxaw loolu ànd ak liggéey bi waa finance moom moo ko jiite yaakaar naa ñu mu ko àndal ñu ngi fi ak mbokki jëwriñ yi fi nekk sëñ Guèye anam sax ñoom ñu ngi fële ci ginnaaw bu ñu limee dañuy juum ñu fi ànd ñëpp wax dëgg yàlla mu taw fexe lim bi nga xamoon na Brésil yónnee woon nañu ko yàlla sunu borom dogal na àgg na fa mu war a jëm yaakaar naa sëriñ bi doy nañu seede lépp ci loxoom la jaarit gis na lépp leneen li nga xam ne moo ci desoon li si tegu woon nañ ko waxee woon rek bu soobee yàlla noonu lañ koy defee fas yéene ko jébbal moom mi it muy sunu feddalu kóllëre waa juram bi sëriñ Ibrahima Xalilullahi ndax bu ñuy wax ci moom yaakaar naa dootuñu mun a téye suñu bopp moo tax duñu mën a sori dëgg yàlla ndax bëgguñu daal wax ji ba ñu gudd te amul solo kon sëriñ bi ni nga xamee ne mbokki taalibe yi joxe woon nañ ma ko noonu ba ñu nga yabal ma a dem jëli ko ci banque ba gannaaw li fa nga xam ne jóge na fa mooy li ñuy jox li ñu sant mbokki taalibe yi jaar ak ñoom ñëpp ñu ma ga a xase woon moo nekk nii. kon it noonu laa koy génnewaat ci mbooloo mi teg ko noon sa loxo li nga xam ne moo tegoon ci addiye ji gannaaw bi sëriñ bi ñëwee teg ci beneen un million bi nga xam ne moo jógan fële mu mat seize millions yi kon li ci teg woon ñu ngi noonu ah ñu lay ñaanal nag ñu fi ànd ak déwén yu bare bari di ko ànd ak yow nga ñuy yóbbu ñuy ziar ndax ziar ren gi moom ah neex na lool de ñun moom sant nañ ci moom waaw wax dëgg yàlla kon ñu ngi wàccee kàddu fii nag. mbokk taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñoo ngi leen nuyu ñëpp di leen ziare di jël ci ñëw bi si amoon taxal Basir di ñaan mu yàgg fi lool te wér di ci teg sang bu tedd bi di sëriñ Galas moom sëriñ Xalil daanaka li sëñ Babacar wax matale na wax ji lépp waaye ñun jotaay bi day jotaayum njaal ci mboolem ku nekk Brésil te sa tank tànk jotewul nga ñëw ci sëñ Galas mi jaale ko waaye juróom bu tedd bi sëñ Ibrahima Xalil ndax ñun kat ni ko sëñ babakar waxe sëñ bi lim ñu defal wax deug yàlla li ñu ko def fayu ko waaye rafet na ndax bu fi joge ñu and ak njabotam ki ci jiite galas mi dem ci sëñ Muntaxa yekiti addi ji wa Brésil dajale mu toll ci 16 millions ñu tek ci loxom mom mi mu tek ci loxol sëriñ bi loolu mu ñu lu sant ko gërem ko man nak xam ngeen ne joge won na Brésil ñaari at nek Angleterre yàlla dogal ma màggal si yàlla xam na ne jotaay bi niru ma ko doon teewee ndax dafa dafa dafa dafa am fu mu fu maanaam ñëw ci ñëwaat ci kër gi te fekk ñu sëñ moom dafa dafa réyuntu ñu lool waaye sëñ bi woo ñu ñaan ñu rek nañu daal ñëw leen nga nga jëmmaale la jotaay bi loolu moo waral suñu tànk fii waaye nag àdduna moom dañu xam ne noonu la demal maa ñëw la waaye sëriñ moom bàyyi na fi ku mat kilifa muy sëñ galas mu wutu ko wutu nu rafet wax dëgg yàlla ñu ko ñaanal mbàkke nga yàgg fi loolu te Anda ko ak sarak yi sut sa wajur tëdd do fan nañ dalal suñu xel nak sant nañ bax ndax lañ fa daan fek rek lañ fek buñ sa nañu suñ danañu dalal ànd ak ñun ba ci sëriñ ba ñewat ba ci kër gi ñu ber lañu am nañ ci woon wo xamni ni sax bernde wuñu fi daf ñoy ba Touba Bogo mu defal ñu fa ay bernde duggal ñu ci barab yi sëñ fallu yi ñuy ziar yépp ñaanal ñu ñibi ñibbiwaat ñu kër kon sëñ Ibrahima Khalil Mbacke fallu ñu ko ñaanal suñu borom taas ñu ci barkem da yokk ay leeram ci barsax ci barkeb Seexul Xadim jotaay bi it mënuñu fee doog bu jóge fi te fàttalikuñ suñ bàyyi ju baax ji suñ bàyyi njaay mi at mu jot da ñëw fii ànd ak taalibe yi ak sëriñ bi doon jëmmal jotaay bi kon nag sëñ bi ñii daal ñaanal leen ay gor lañ ay ay ñu ñu ñu ñu am ñu am kóllëre lañ ndax li kóllëre dong la mën nañoo jël seen addiya ñëwal seen bopp demal seen bopp defal li ñu defal seen bopp waaye nak na nga leen ñaanal bu saytaane bañ man dara ci seen liggey bi ay jambar lañ jamono ji xatna lool Brésil ñu bari jóge nañ fa bu me tak lim bu tollu ci 16 millions indi ko ah seen jambar dong la ñaanal leen nak bu déwénee mu doon ay ay ay ay millions yu baree baree bëri ndax addi seigne touba dafa mata fonk ndax Cheikh mu sombu bari na ñu ñu nekk bitim rew ñu ci mëna japp kon nak fu ci way nekk bu delloo na na na na na na ak laxasaayam xam ne déwén lu faaw xoli fi ñew dafa war a ñëwaat lu double 16 millions yi dafa war a ñëwaat kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp daañ mbàkk nga fi loolu te wér ñun de wax dëgg yàlla suñu sedd na buñ teewutoon te ñii doxalee nii ànd kook ñun ci kóllëre gi kóllëre gi rek doy na lépp ndax kóllëre ginnaaw lay féete te dara ñaaw fi sëñ Ousmane Baye Fall mii ñëwoon na fi ànd feeg waa Sampolo indi fi mu jàll ginnaaw bi soxna yi ñëw fi ànd feeg waa sañ xale yi indi fi mu jàll waaye léegi nag waa Brésil gépp ñoo ànd ak mbooloo bi ñëw di la jaale di la masaw tey di la jaale sa wajur tedd wa ñaan suñu borom tas ci barkem yow ko leeram ci bar sax ci barkem suñu tuba ah, xel nak mën naa dal ci mom ndax man mi suñu aboom suñu fallu mi fa ñëwee tok nañ ci mu nekk yaakaar séré nga ci luma 30 minutes yo xamni ci digëne ma suñu xalé la waxtaan ak man kon nak eh, xel man na man na dal ci mom ñu ñaan dal suñu borom saxal fi jamm saxal ko ci njabot gi o yan bi o toy toy toy ci yow da nga ànd ak sarak ci barke Cheikh Khadim ñu ngi ni ñëpp di gërëm ñëpp lu ci manké nak xeyna ci ñun la waye mébét amon ci réew dal mooy kër sëñ Tuubaa nga xam ne manga fa ñu bëggoon a indi caabi yi Mbàkke wajuru nekk waaye bëgg nañ saa su eggee taalibe yi ànd ak yow indi caabi yi jox la ko ñu ànd ak ñoom sëñ Muntaxa ba ñu sumb yeneen rew mat bëri na ay ndog-ndog mooy ñu ñëwee ñu fay faat bëri na lool Mbàkke nañ ci def ay ñaan nag soo waay daan defee waaw ñu ngi la koy diis bu baax a a baax bëri na ñu fay tawat bëri na ñuy jàllantu ci réew waaye léegi rek laa ko wax benn mbokk taalibe nee ñu doon jàllantu ñu bëree bare bëri dañuy jekk ñu di ko war rek waaye danañ ñëwaat incha allah ndax réew mom mom sëñ Xalil dafa liggéey lo xam mom mom moom ba àdduna tuk du nax say ndax fekk 2008 am réew ben daayira neeku fa ga dem beren yakarna jurum fuk ñanga fa ak ñaar wala ñet loolu loolu Mbàkke sa liggéey bay la kon nak loolu mom ñu ngi la koy ñu ngi jaraat liggéey bépp diko tek sa loxo diko and ak yow euh, xëy ñoom ñanga fa ma ngi digënt ak ñom sa suné tayit di fa jëli ko loolu gi ñaan nga yag fi loolu te wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyoo di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di jiital ci nuyoo beeg ziar bi sëriñ Galis Mbacke moom Cheikh Ibrahima Khalilullah di ko ziar waajuram wa di ñaan suñu boroom taas ñu ci barkeem te yokk yërmandeem ak mboolem ku fa fekk ak ku fa fekk ak suñu maam jaag suñu waajur wa Baye Ndiaye mboolem koo xam ni yaa ngi doon yëngu Brésil rek suñu borom wàccee ab dogal ci yow ñu ngi leen ñaanal ñoom ñëpp addi ji nga xam ne moom lañu fa yóbbu daal yàlla nay seen njéggal ñun ñii fi desit yàlla nañu suñu boroom kàttanal wéral ñu ban mën koo jëfaat ci nañ ko bëggee ginnaaw loolu sëriñ bi ñu ngi lay ziar baax di la sant di seede ay kàddu yi cant rek ci mbooloo mii ñu àndal ak suñu jëriñ ji di sëriñ Cheikh Ndiaye ci taxawaay bii nga xam ni taxaw na ko tey jii def yitteem yëpp muy taxawaayu waa Brésil ci diggante kóllëre ndax yaakaar naa am na yitte yu xat lool waaye ba nga ko joxee ndigal taabal lépp lu mu doon def ni munu cee ñàkk bañ a teew kon ñu ngi ko ciy sant bu baax di la ci sant yow ci jiital googu nga ko jiital suñu kanam di sant mbooloo mi di sant jëwrin yi nga xam ni ñoom lañu àndal liggéey bi ñu ne fii ci biir mbooloo mi xëy na buñ nee jëwrin yi rek bàyyiwuñu kenn waaye rawatina ñi nga xam ni ñoo jiite li ñuy wooye ay koppar muy xaalis bi ñuy ay jàmbaar lool ñu mën cee wax kenn ci sëriñ Maam Mor Guèye mii nga xam ni loolu daa jiitu cib daayira mooy am dimbalante te yàlla rek tax moom ci taxawaay boobu la ne sëriñ Maam Mor Guèye maam góor Guèye mii ci ginnaaw ñu koy sant bu baax a baax ci taxawaayam maanaam muy at yu néew lool sëñ bi waaye ñuy jàmbaar lool ci ay xéewal daañ ko dajale ba di jël seen alal di ci def ci nu wir lool ak nu leer nañ li gën ci mbooloo mooy leeral ak wiral ci la ñuy dox kon dañ leen di ñaanal ñoom bu baax ndax amuñu seen fay ndax lii mbooloo mépp mënuñu àndandoo di ko def kenn dong koy def kon ki jaayante jël léppam jël léppam dëxëñ ko ci loolu kooku amuñu ak payam ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di santit jëwri ni daayira yi ci soññee bi nga xam ñu ngi koy soññi jullit yi ak murit yi rawatina mbokki taalibe yi ci kaa leen ñu liggéeyal Serigne Touba amuñu lu ëpp loolu ñi ciy woo dañ dañ leen dañ leen di dimbali waaye ñun ñuy wootee dañuy dimbali kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax addiyee nag sëñ moo dawante daana wax naan acam acam ab yambar lañ koy wax yambar miñ koy wax mooy ki nga xam ni addiyee day ñëw bay jàll mu naan ñaata la ñu ni mu ni laay lay te dërëmam demu ci yàlla nañ ci yàlla musal kon nañ ci gën a farlu te góorgóorlu ci te xam ne lu dul liggéeyal Serigne Touba liggéeyal Serigne Touba ko gën ndax kenn ku nekk ci ñun ameel na cant sa waajuroo muy sëñ Ibrahima Khalil ñun duñ ay dongoom du ay taalibe ak njabootam lañ bàyyi la woon ci ñun loolu laay wax saa su ne dama leen kenn koo xam ni sa waajur amal nga ko njariñ fii ci réew mi war naa dem sant sëriñ Ibrahima laa ndax moo ñu xiirtal ci loolu góorgóorlu leen seen i waajur góorgóorlu leen ci liggéeyal sëriñ Tuubaa fii mag néew fi mën nga wàññi ñi fi am juróom benn kon bu ñu dee ay ndaw mu dëgmal ñu ci loolu dimbali nañu dimbali na suñuy waaju kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yokk leeram taas ñu ci barke ñu ngi ñaanal it murit yi nga xam ne dañ faa tëdd dañ wére di nga ñaanal leen baax ñu wér ñafe ne ci jafe-jafe ci xat suñu borom yaatal leen bañ génn ñi nga xam ne dañoom yéene yokk jëm ca kanam seet yeneen i barab suñu borom yéwénal leen seen yoon leeralal leen ko nañ ban ñu koy amee nañ ko bëgge ñu ngi la koy dagaan baax a baax di ñaanal it ña fa woon te tuxu ci yeneen i barab di nemmiku mbooloo mbokkum taalibe yi nga ñaanal leen fañ nekk ñu am fa jàmm te gën faa yaatu ndax liggéeyal sëriñ bi rek moo leen ñor kooku moom ki koy def liggéeyal sëriñ bi rek ko kon ñu ngi lay ñaanal bu baax Mbàkke nga yàgg fi loolu te di ñaanal soxna ya fa ne ak soxna yi nga xam ne am nañ mébétu ñëw jege seen i borom kër suñ borom kàttanal leen te gën leen a jubaleeg seen i kilifa ñu ngi la koy ñaan baax a baax jërë ngeen jëf kon ñu ngi jéggalu baax waaw di tuubal murit yépp nag. dëgg yàlla ci soññee yeeg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbooloom mi yëpp te di leen ziyaara ci turu suñu kilifa gi suñu sëriñ Cheikh Mamadou Fadal moom sëñ Ibrahima Khalil moom Cheikh Mamadou Fadal di jël nuyoo boobu ak ziyaar bi di ci njëkkee. sunu sang bu tedd bi nga xam ne mooy suñu yaakaar tey ak ëllëg di sëriñ Muntaxa moom Cheikh Mamadou Bassir di sëriñ Touba tey du ko ñaanal yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ba naal yi mu a yi liggéeyal sëriñ Touba yëpp mu def ko ne mu ko bëggee te mu ànd te ñu ànd kook moom euh, kàddu yi nag xëy na mm, lot nañ lool ci yëkkati ko waaye dañ ñoo jox ndigal te sañ sañeefu sa bañ a ndigal li kon dañuy jëfe ndigal li rek muy kàddu yi cant ak gërëm bu jógee ci sëriñ Mahamadul Fadal mi wàcc ci mbooleem ñun njaboot gi yëpp ndax mooy moo fi sëriñ Xalil te it ñu ko ñu ko fi ñu jaar ñi fi jaar ñëpp niñ ko waxee eh, jataay bi jëmmi sëriñ Xalil moo tax mu am ndax moo ñu bokk jaboote mm. ngeen sàmm kóllëre googu ba tax ngeen defaat nii tey te njëkkewut tey ndax bi mu fi bàyyi ko moom seen taxawaay ñun njaboot gi yëpp yëg nañ ko mm-hmm. xëy na miinuñ kanam yi waaye seen jëf miin nañ ko te seen digganteeg sëriñ xalil yaakaar naa du njabootu suñ xalil ñoo koy ñoo koy seede mën naa ni àdduna laay wax ne ñëpp a ko xam ndax waa Brésil ni mu meloon ci ñoom ak cofeel gi mu amoon ci ñoom ak yëg gi mu amoon ci ñoom ba tax na bokk na ci yaatal gi mu gi mu gi mu gi mu doon def di ko yaatal ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa bi mu nekkoon ndax ci loolu rek na nekkoon xamoon na ni barab la te ña fa nekk njabootu Sëriñ Tuubaa la moo tax mu fa doon doxee noonu mu doon doxe doxin woowu nag ak la mu daan jëfandikoo ci barkeb baayam bu tedd ba ba fa daan jógee di wax ne daa jaar ci Sëriñ Fàllu wax ko ne ci yéen la jëm si loola da ko taasoo ci la Sëriñ Fàllu waxoon ne ba muy liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci jumaa ji nga xam ne lu baree bari ñu koy dégg ci nettali yi muy lum daan jëfëndiko ci ciobéré borom loo lo xamné sëñ Tuubaa defaloon na ko muy taw bu daan ñëw nan ko sakkel dem bakkor ndax ñoy bay dama jox may def ci liggéey sëriñ Tuubaa yoy mu daan jëfëndiko yépp liko ko waraloon mooy ngir liggéey sëñ Tuubaa bi mu sumboon sëñ Xalil nag loolu mu daan jëfëndiko momi ci yeen di leen jege di di ñaan suñ borom di faji yenn aaju yi muy faju dara waral ko won lu bëgg liggéey sëñ yi nga xamné ni mi ngi ci dëkk bi jaare ko ci serigne abul baraka te mu seede ko bimu fi ñëwee ne kenn mënu ko won ci addiya ci ak gi ngir ngir loolu mëna taxaw képp taxoon mu ko daan def te loolu jugu fi mi ngi fi ndax serigne muntaha mi ngay xam ne ngeen dajale seen addi ji ci passif bu reuy bi ngeen ci def dem yobul koko waxtu wu ne mi ngi mi ngi mi ngi sama classe gi dañuy faddu sax japp ne bu ñëkëté dara def ci liggéey université bi rek jeexna na université bi liggéey buy continuer la li feeg mi ngi fi rek dafa laaj taxaw dafa laa jëkkati addiyee di yóbbu képp ku ca jëf rek comme li ngeen waxee léegi mu ngi mel ni jëf nga ci ci jumaay jumaay Touba ci ndax ndigal loo xam ne ne Serigne Touba moo ko joxe woon ndigal yi Serigne Touba joxe nag képp ku ci feeñ doo nëbbu kon damaa jàpp ne lu ci waay mën a jëf te yëkkati ko jëfe ko ci liggéeyub Serigne Touba bii moom moom yaa jàpp ne la nga jëf daa tuuti wala da ngay bëgg ñu ràññee la waaye Serigne Touba gis na la mm-hmm. ndax ku neexub gis la mm-hmm. li ngeen di sàkk li ngeen doon sàkk di ko sàkku ci sëñ Ibrahima Khalil aw ma sikk sàkk ci ne bu ngeen ko sàkkoo ci sëñ Mouhamadou Fadal mi sëñ Touba da koy def nu raw na mu ko doon defee ndax moom de tàmbalee ci suuf jëm ci kaw te dama bokk ci ñi gëm ne dafay tànn képp kuñ jiitu ci kanam rawatina ci liggéeyam bi moo la fa teg kon ba mu koy booleeg sëñ Ibrahima Khalil sëñ Fallou mii muy nekk ab taawam di nekk jëwriñam boobu jiit na suñu juddu ñun mm-hmm. te it ñun ñëpp kenn xamu ko woon bu nekkee suñu kanam tey li ngeen ànd ak moom li ngeen di mébét wala li ngeen soxla wala li ngeen bëgg ni ngeen ko daan diisee sëñ Ibrahima Khalil bu ko yëgee dana faju awma ci sikk sàkk ndax sëñ Tuubaa koy faj tam mi ngi fi kon sant lañuy def ñun di leen gërëm di wax ne pas-pas bi rëy na ndax réew ma ku xam ni mu mel rawatina bitim réew waaye fu mel noonu ngeen ma dajale addi ju toll nii indil ko sëñ Tuubaa euh, jàpp naa ne bu ngeen demee de seen ajo ju ngeen am sëñ Tuubaa dana ko faj ndax yéene yéene ji man xam naa ne moo ëpp jëf ji waaw te pas-pas bi lu bu fi nekkee rek lépp lu ngeen so lu ngeen song da ngeen koy da ngeen koy daan sëñ sëñ Cheikh mi ngi koy tudd léegi di ko sëñ di ko sëñ Tuubaa gi ngeen defar man ay ko sëñ Tuubaa laa laay wax yoo xam ne mi ngi ñëw foofu ndax sëñ Tuubaa moo mel noonu kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm dañu wax ne sagu nañ ci lool ci liggéeyub sëñ Ibrahima bi nga xam ne nii ñëw na foofu ngeen fesal ko fii jaare ko ci sëñ sëñ Fallou mi waat ko ci ginnaawam. Mm. fam fam nekk puukaroo na fa ci kanamu njabootu sëñ Fallou gépp mm. dara xam naa ne gën a sedd xolam lii ngeen def. Mm. ñu nit ñi ngi koy ànd ak yéen di leen wax te wax ne waxtu ngeen gëstoo da ngeen ñu gis. ndax ay ay donga lañ ay taalibe lañ te ci ginnaaw sëñ Fallou lañ topp. fa yéene ko ànd ak yéen nekk njaboot ci yéen. Eh, lépp loo loo xam ne nii sëñ Ibrahima daana ko def. buñ buñ buñ buñ ko mënut danañ ko jéem. incha allah rabbi di sant bu baax di jéggulu itam ci kàddu yi lépp loo xam ne nii dëng na ci ci nun ci nun la waaye ni ko sëriñ bi waxee woon ma jotal leen ko ngir ngir soññe ak ak fésal ak xolam bu sedd ci yen euh, romb na li waaye xëy na làmmiñ wee xaw a lott ci wax ko ngi jégg lu baax a baax a baax sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu